jotaay bi nga xam te ne nii waa Yewwi Askan Wi amal nañ ko Ousmane Sonko ak ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk ay xalifa Sall ñi nga xam te ne ñoom ñoo bokk ci coalition bi ñu euh, wax ci ay ponk yi nga xam te ne nii bëri na lool bi ci gën a fës moo di assemblée nationale ak budget yi nga xam te ñu ngi ko fay voté gis nañ taxawaay yi nga xam te ni député Yewwi Askan Wi am nañ ko fa mu jëm ci vote budget ñoom seen mais am na si loo xam te ni Ousmane Sonko cof na ko wax ci mu di. Mame Mbaye Niang mi nga xamante ne nii moom moo nekkoon njiital euh, Prodac amoon benn euh, rapport bu ko fi épinglé woon ci ay milliards mu mel ni jamono ji nii coow li juddu na ci assemblée nationale ci diggante pouvoir bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk kujje politique yi ana ban jàngat lecture nga am par rapport ak coow li nga xamante nii commencé na tàmbali ci assemblée nationale. mais coow li commencé wul tey coow li commencé na ci. ba ñu ubbee assemblée bi le 12 septembre. Ah coow loolu moo gën a garaaw lii parce que coow nañu ba xeex nañu. gendarmerie ñëw na peloton de gendarme bi encaissé yore ay fetal moo defoon coow yi passé na coow yi dafa wàññeeku léegi ne ma waaw bien maintenant affaire u Prodac Prodac lu am la parce que ku ñuy wax Birahim Seck bu Forum Civil bind na ci téere mm-hmm. xaw ma ndegam liir nga ko war a léerloo liir naa ko te xam naa ko bu baax a baax Birahim Amadou Ba ministre de finance wax na Prodac am na moom ci boppam waxoon na ne Mame Mbaye Ndiaye am na lu ko dal ci Prodac te moo doon ministre des finances que d'accord nga ci mhm. donc man ay fee laa joxe di ci des nag bu bu ñu waxee ñoom waa yi ne Prodac rapport bi mu ngi ak moom tey mhm. rapport bi tudd nga ko léegi mhm. donc dafa mel ni am na génne na ko teg na ko ci loxo mhm. jël rapport bi dem na assemblée nationale nit yëkkati ne ko ne rapport baa ngi nii mais ngoonte kañ wax bi jeex na d'accord alors foofu liñ fa évoqué moo di maanaam ñi nga xam ne nii ñoo war a nekk ca ndungu siin nekkuñu ndungu siin ku farak le président Macky Sall lu la neex def ku nga xam te ni faro ak président Macky Sall boo defee lu toll ni tarfatal ay ni ñu jël la patam panamal dugal la sa ndungu si ndax looy partage la xam mais loolu lu lu lu du tey la du tey lu may partagé la man mi convoqué nañ ma gendarmerie sur la CREI jiiñ ma lu bari wax ne lii moo nekk suma compte donc ndëgëm buñ ma ko defee ma gëm ko def nañ ko Khalifa Sall mais damay sori mais sama bopp lañ ko def man def nañ ko Karim Wade mhm. moo tax ñu déporté ko mhm. moonte moon loolu amul luñ ci werante lu am la lu am am la. d'accord kon maanaam daal euh, Macky Sall li muy promouvoir moo di euh, ñi nga xam te ni dañuy luubal alalu réew mi. que li muy promouvoir mooy luubal alalu mi du ko waxee noonu. mais li ñuy waxtaane te nga tudd ko te mu nekk ma mën ko joxañ baaram Prodac la loolu mooy loolu mooy question bi. bien sûr waaw parce que loolu mooy leer ci bopp nit ñi ñoo xam ne diw la ñu wax. mais du ma boole Sénégalais yëpp ak problème yi am yëpp def ko benn façon du benn. d'accord waaw Prodac nga indi. Mhm. ma wax na ne loolu nga wax dëgg la lii ak lii ak lii tax na nekk dëgg. Mhm. d'accord alors ñu des ba tey assemblée nationale parce que euh, fan yi ñu génn yëpp ñu ngi lay dégg yow nga ci àddu jëm ci li nga xamante ne moom moo nekk euh, loi organique beeg li jëm ci wàllu règlement intérieur bi. naa ko duppee noonu que ne dañ ko salfaañe maanaam loolu euh, fan nga ci toll. fi ma ci toll. waaw da ngay laaj ñoom assemblée fu ñu ci toll. man li fi du ab xeex boo engagé la pour fësal lañ fay def wala. kan mooy defar loi du assemblée mooy defar loi loi bi seen loi la ñoom loi organique la. Mhm. ñoom ñoo moom seen réglement intérieur téye ko. Mhm. li nga def ci biir fii te bind ci Sénégal set man li ci nekk xaw ma ko. mais yow war nga man sensé xam li nekk ci biir yëpp parce que yaa nekk ci biir yaa fiy liggéey mais man xawma lu ci nekk donc ñoom buñ leen de li nekk ci biir lii la baaxul yow bu ma toogee fii wax la ne li fi nekk baaxul nga xool ko xam ne baaxul ku koy faj yow yaa koy faj mais du man mais malheureusement maanaam ni ngi ci ñi ngi ci waxee di ko fësal di ko dénoncer euh, da nga ci wéet ci bi mën naa ne loolu lu tax encore une fois du wéet non man yow rek laa ci euh, dégg ah. du encore une fois il faut nga déglu ma da ngay confondre wax bi man seetuma ko ànd ak man ak commande man dama bëgg nga yëg yow dafa mel ni xam nga loi organique léegi yow est-ce que seet ngi loi bi en tant que journaliste pour laaj pour seet li may wax fan la nekk yow mi war a informer nit ñi mooy mooy problème bi donc man yëgal naa leen yéen yéen journalistes yi yëgal naa ko député yi yëgal naa ko Macky Sall dem naa boo xam ne sax Macky Sall dafa war a porter man wàcc na man xam nga lan moom war. Mhm. wax waxal boo waxee ñi am soxla. Mhm. te bëgg a liggéey jël ci liggéey. d'accord léegi euh, nee nga aussi sénégalais bu ñu découvrir woon ñi nga xam ne nii ñoom ñoo def jëf jooju gàcce gu mag nga ci am. waxuma sénégalais bu ñuy découvrir dama ne ñi ma dégg ne ñu ngi ci bu fekkee ne ñu ngi ci dina am gàcce. ñooñu ñan lañ. man ma la ko wax yow ma ko wax parce que leeragul sama bopp. ma ko jox exclusivité. non amul exclusivité xam nga naan moo am dëgg wala duul dëgg. exclusivité amul exclusivité na nekk dëgg comme man nekkuma ci biir fekkewuma ko ñoom ñi ko yor. Mhm. toog nañu ay fan bi ma ko waxee te gisuñu ko ñi si gis laaj nañ ma am na kenn ku bind lettre Lamine Diallo. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla eh, maa ngi koy remercier ci yoon bi mu aw ngoonte man xam nga wéetutuma mm-hmm. am na ñu ma dëgg te ñu ma dégg ñëpp bari nañu mm-hmm. dafa am ñoo xam ne mënuñu ma tontu ak ñu ma ragal a tontu ragal a tontu waaw waaw comment ça ah, mais jarul sori xam la wax naa dara da nga ne dafa ragal a tontu mais ñaar moo ragal a mais dañuy sàcc big bi ki ko sàcc kan ki ko sàcc dina dina ma tontu moom xam naa ki ko moom dina tontu mais aussi baax na ci nga ne diw dafa sàcc. wala dama gis nit ki doof dafa sàcc. nga nga teg baaraam nit ki ñu xam exactement kii moo sàcc. tamit wax naa ne. da ñuy gën a faciliter liggéey bi. man du ma faciliter liggéey te ngay fay ko te doo ma ci doole. demal jógi seeti ko ni sa morom yëpp def déplacez-vous prenez vos porte-plume allez chercher c'est ça votre métier. aller chercher l'information ñu ngi koy def bu su ah, bii bii la gën a yomb demal nga defi ko léegi da ngay dem assemblée am naa occasion toog ak ki nga xam te ne moom moo soulever problème boobu koy foog naa mais du bul xaar muy soulever naa ko pare waaw man li ma doon def pare naa ci loo ci bëgg xamaat mënoo ko xamee lu dul ci assemblée bi te man liggéeyuma fa te am nga droit dem fa sans doute bés bu nekk bu amee séance nga yónni nit mhm. d'accord alors euh, ñu wax nag ci ponk xam naa waxtu wi léegi mu xaw ñoo xoj ñu wax ci beneen ponk mu nga xam te ni tey jii bëri na ci ay euh, journaux yu ko xëyee mu di ñaari renseignements généraux yi nga xam te ni jàpp nañ ni euh, depuis samedi bi ñu génn kenn gisu leen alors mu nekk kii di adjudant chef Déthié ji nekk service foofee ci inspection générale d'État ak sergent Fulbert Sambou nekk ci direction des renseignements militaire ñoom ñaar ngeen di gis noonu ci écran bi euh, mu mel ni euh, dañu ne daal kenn gisul leen boobu ba léegi euh, te am na ñuy fësal ay xibaar sax ni dañu laale ci affaire suñu naataango boobu di Pape Alé Niang ana ban jàngat nga am ci le fekk que quand même ñaari renseignements généraux ne mes ne mentang ci àll bi kenn gisu leen